salaamaaleykum mbokki taalibe yëpp mbokki murit yëpp salaamaaleykum waa Touba bi yëpp salaamaaleykum waa Kër Soxna si Gaane ñu murit yeeg jànkat xase yëpp Baay Faal yépp rek ñu ngi fii ci liggéey bi sëñ sëñ Njaga man de gars yi namoon naa leen lool te gisuma leen woon ah waaye jëwriñ lii de moom dañ nit ñi dañ leen a yàkkamti woon lool namm leen lool ndax suñu bërëb bii daal dañ ci am yéene lool sama waajur yi te tamit ne namit nii ngeen ñëwee nag neex nañu lool de ay na gën a mucc ayib xam ngeen liggéey bi fii gis ngeen ko murit ni ñu ci amee yéene suñ fàll nii mu amee yéene ci liggéey bi ak ni ñu ko defee nii mm. néew na fooy dem ci bërëb gis ñu sonn ci sonn bi benn fanu tamxarit ba léegi ñu ngi fii ci liggéey bi waaw suñu Fallou parce moom laa doon wax noonu ma ne ko yéene ji sëñ Fallou am ba ba bërëb bi mel nii benn fanu tamxarit ba léegi sëñ Fallou ngi fi ak gars yi ñu def nii képp ku gis bërëb bi moo xam internet la wala lu munti doon bëgg nga ci waaw sëñ Fallou fu gars yi toll kon ñu ah fii moom ah, <laughs> ah, ah. yow yow yow yow kon yow xam nga ni kon lamp kon fii. am làmp kay am di ak saa waay soxna su baaxoon kay sëñ bi waaw xam nga soxna su baax moom moom lañ jox moom lañ jotoon moom lañ jotoon am di ah mu ne ko am di demal euh, mu ne Moodu benn demal demal nekkal ma fa kon nag dama mel ni Cheikh Ibrahima moom mooy wane boppam fii ci bërëb waaw <laughs> kon ginnaaw mënu ma woon jot kii maam Cheikh. Ah. léegi bu ma jotee kii. <laughs> kon affaire yi baax na. waaw lamp moom maam maam dégg nañ ci lool. sëñ Fallou sëñ Fallou ah. sëñ Fallou yàlla nañu gën am teew fi yàq sëriñ bi. lool gàcce ngalaama sëñ Fall palu. na suñu borom gën a lafal cat njaga jërë ngeen jëf waaw loolu moom ci làmmiñ suñu abib laa koy jëlee moom ndax man sañ ñu am yàlla nañ am gu ko sut àdduna ak laaxiraat waaw ci waaw barke borom barke soxna Yusuf Jaan barke soxna Aminta Mbàkke barke soxna Faati Dia barke soxna maanaam eh, benn gaabu barke fukki doomi sëñ Tuubaa yi ma demoon démb ca xuru Mbàkke daa mel nag ñoom da da dama faa leen dem jëli seen i nuyoo ah, moo tax ma dem fa démb ñëw te dem bi ma fa demee ngeen tàmbalee liggéey bi kon boog loolu hasard amul jëleen moom nu mu tudd Seydina Omar ah Seydina Omar yow. Baye Sane ñoo ñoo ñoo jàngoon alxuraan. man dama leen a te gisuma leen woon man loolu jaaxal na ma. waaw <laughs> <laughs> kay kon jërë ngeen jëf yàlla ngeen yegg rek jàmm maam laam ngeen dem ba mu doon entreprise boo xamante ni ñu soxlaatee liggéey yu mag ci yoon mën rek ñu woo leen seen bàyyi mbégte la ci bërëb bi sëñ am bi yàlla na suñu doom gën a taxaw ak mboolem ñu nekk ci bërëb maam Cheikh Ibrahima Fall bi yëpp maa ngi saar waa sama sama sama jëriñ nag maam Cheikh Mbodj ak <laughs> jërë ngeen jëf parce que suñu Fall jërë